ay ñu ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf l'observateur Touba la xëy las les échos ak vox populi xëy tiwaawoon direct info moom yeewoo ca faramaçon ye ñoom ñëpp ni ci diine mbaa diine ji ca la ñu xëy bi leen l'observateur Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mi toog ci xilaafa gi doon xalifa général des mourides jën yi kenn mbaar wi yoon wi tege l'observateur xëy nañu xamale ak ñoom ci ñi wër Serigne bi yéenekaay bi nañu kii di Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadar fa ko Serigne Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké tegoon fa la ko Serigne Mountakha Bassirou Mbacké delloo Cheikh Bass Abdou Khadar mooy porte-parole xalifa général des mourides Serigne musa Mbacké Nawel mooy jëwrinu xalifa bi Serigne Mountakha Gueye mooy bëkk néeg bi Cheikhouna Sylla aide de camp bi Cheikh Abdou Latif Mbacké l'observateur nañu li ñu koy gis du bari waaye bokk na ci ñi gën a am solo ci ñi wër Serigne bi Serigne beneen bu xëy daj kapp journal yi mooy Serigne Moustapha Sy Serigne beneen bu xëy daj kapp journal yi mooy Serigne Moustapha Sy L'As Les Échos journal Source A l'observateur Rewmi Quotidien enquête ak le quotidien ñoom ñëpp xëy nañu dellu si ci kàddu yu responsable moral bu daayira Moustarchidine wal Moustarchidaty di Serigne Moustapha Sy yëkkati la Sénégal nañu sëriñ bi nee na présidentielle yi 2019 yi la Sénégal nañu sëriñ bi nee na présidentielle yi ñu jëm Macky bu génnewul Khalifa Sall ci kaso bi bàyyi ko mu bokk ci élection moom sëriñ bi dana wàcc ci géew bi doon candidat Les Échos xëy kàdduy sëriñ bi tegal ñu ci xëta njëkk ba tegal ñu ci sax ne sëriñ Moussa Fall bu bëggoon seene Macky dafay wax li ko sëriñ Abdou waxoon Vox Populi nañu sëriñ Moussa si candidat la cay doon bu dee Macky Sall xibaaru sëriñ boobee réew mi quotidien gis ci candidature ba règlement de compte maanaam soobu ci géew bi bokk ci wote yi ngirub defante wote yi 2019 yi quotidien dikk ak ñun ci li mu tuddee amendement bu Moussa Sy ci jamono ji jege ñaalee Khalifa Sall yi tànnee yi Idrissa Seck ngir bu Khalifa Sall munta doon candidat ñoom ñu def ko seenub candidat jiital ko ñu ci mel na ñoom Bamba Fall ak Youssouf Mbow yéenekaay bi nee nañu maire bu Parcelles Assainies di Moussa Sy moom moo di opposition bi yëpp ànd jiital Parti démocratique Sénégal ndax jàpp na élection ñu gisaat ko ci xët mu njëkku la Sénégal moom Moussa Sy mu ne ñu fa opposition bi yëpp a war a booloo nekk ci ginnaaw Parti démocratique Sénégal bu ñu bëggee sonal Macky Sall sonal na keroog responsable APR yu Pikine yi l'Observateur nañu samedi ca ngoon Macky da doon daje ak responsable APR ya ci diwaanu Pikine jël na leen audience ca palais ba waxtaan na ak ñoom ci diirub juróomi waxtu lu nekk gaañ a dégg nañ ko ca ndaje ma nee liggéey lu leen mën a may ndam l'observateur nañu Macky Sall yamu ca sullil na leen sax wax meeting de clôture bu Benno Bokk Yaakaar ba amoon ci stade Alassane Djigo ci législatif yi ak sabotage ga ca am laas nañu Macky Sall nee na waa Pikine seen xiiroo beeg ŋaayoo bi ngeen nekk laa bëgg ngeen bàyyi ko te nekk ci farata Sud Quotidien moom xëy na toppi farata Casamance ak la fa xew yéenekaay bi dikk naak ñun ci xalaat bu bàyyeeko ci professeur Mamadou Diouf bu Université Columbia soldat yi ñu bëgg ñu régler mbir ma ca Casamance na ci la mu ca xalaat Sud nañu ma ngi ko waxee ca rajo Sud FM ci émission objection libération nañu la amoon ca àll bo faa bayot ba samba boo yi ñuy wër tey jii rek la ñuy dee mooy ñi ak ñi leen ti doon jàppale maanaam seeni complice sonn nañu lool jamono ji taraak ge tar na lool temps yi ci ñoom keroog àjjuma am na fukki nit ak juróom benn yu ñu yóbbu ca kaso ba di leen toppee tuumay faat nit samedi ci suba gendarme yu section recherche ak waa CICN fajar la ñu dem ci kër waa ji di Omar Ampuy Bodian jëli ko lo tax nañu waajaa ngi Omar Ampuy mission la ci MFDC xam ne l'armée na ko ci jàppante bu amoon ci seen diggante diggante liggéeykat yi Dakar dem dikk yéeg seen njiit la coow la pënd bi wuréegul li waral coow li moo di terrain bu ñu ne waa Dakar dem dikk ñoo ko moom te ñu jël ko jaay ko waa APR ngir ñu tabax fa ab siège source su li mbóot yu doy waar ci mbir yi bokk na ci terrain boobee benn milliard ak ñaari téeméeri million lay jar benn milliard la ko jaayee waa APR te waa Vivo Énergie ak waa Oil Libya yéenekaay bi nañ ci xaalis bu tàng jër ñi seen yaram tàng jër ñoo ñi nekk ci xët mu njëkk yéenekaay bi di record ay footballkat yi Sénégal lañu ñu gën leen a xam ci dugal maanaam i attaquant Moussa Konaté Mame Biram Diouf Baye Omar Niass ak Ibrahima Niane yéen a kaay bi nañu ku ci nekk ci ñoom wane nga sa bopp ci équipe ba ngay football ca week bi stade yéen a kaay nañu kii di Pape Moussa Konaté moom ñaari bii la dugal moom Pape Moussa Konaté mëtëram tàmbalee naa attaque xibaar bi ci biir libération ku ci yam doo mën a ñepp ubbi leen journal bi dafa am ñu doon tukki jëloon avion bu compagnie transfert avion ba bëgg a arrière mënuta arrière yéenekaay bi nañu passager yewoon ci avion ba maanaam ña waroon a tukki ñoom la ñu ñaan ngir ñu wàcc pousse avion bi ba mu mën a arrière avion boobee compagnie transfert bu commandant Fall moo ko moom ku musuta gis ay nit yuy pousse avion xooli ko ci page 2 bu Libération waaw turandoo karo bu baax